Euh, at moo xamante ni Sénégal dafay soqaliku dem si kanam jafe-jafe yi am ci réew mi yëpp daal di saafarawu euh, mbokki nag tey ñu dellu am mbégte invité professeur Ibrahima Ndiaye mu bokk ci parti bi di PRP yor fa lépp loo xam ne jëm na ci wàllum finance ak wàllum logistique euh, moom la ñu invité woon Moussa Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di di di jëfal ci ci invitation bi yaakaar li ñu fi waxee dina li ñu fi wax yëpp dina amal solo askan wi. mais di profiter ci occasion bi di souhaiter bonne heureuse année à Sénégalais de façon générale di am yaakaar ne euh, at mi génn li fi ne amoon ci naqar ak ak mbetteel yooyu du fi duñ ko fi amaat am lu ko gën daam ñaan ñaan bu ñaan ñaan nag bu ren naree ñaaw dal na daaw waaye yaakaar nañu bii moom kenn du ko wax kenn du wax parce que corona ngi fi yàlla na fi suñu borom jëlee mbas mi te mu ubbi ay xéewal ci ci askan wi jox ni ñuy wér ak wérle Euh, jërëjëf euh, professeur Ibrahima Ndiaye euh, yow nga nekk ci parti bi di PRP président Macky Sall def na discours bi nga xamante ni tey baaxoo na ko def at mu jot fanweeri fan ak benn ci weer décembre bu at mi di jeex discours bi déglu nga ko fond beeg forme bi lan moo ci sa xalaat. waaw ah, d'abord dafa dafa du benn pratique bu ñuy woowee républicaine dañ koy def at mu jot chaque 31 décembre exercice la boobu président da koy def di ci def bilan. di def perspective ay la yoon def na def na def na bilan am def na perspective mais lu ñu gis d'abord ñun Superman lañ gis. super Superman maanaam ku mën lépp. Ah lim fi joxe ci def na fi lii def fi lii def fi lii def fi maanaam lim lim fi joxe ci misaal kii mu def kenn xamul tool ñu daal bi ñu bi ñu bi ñu dégloo discours bi pare dañoo jàpp ne Sénégal lépp moo ji dara dara problème amu fi. Mm-hmm. bilan da koy def c'est parce que loolu lañ moo tax ñu fal ko mu def bilan bu defee un mais bu si ci ci nit buy def bilan day am lu mu tële day am loo xam ne bëggoon na ko def sottiwut day am loo xam ne jéem na ko waaye kàttanam may ko woon wala boo koom-koomam may ko woon dégguñu ko ci li tax ma ne superman la mooy nit nit tekki noppam kese luñ ne mën a jox ci alal da nga xam ne lii lii mënoo ko lii moo tax munoo ko alal rawatina ñu jël doole askan wi jël dooleem jox la. est-ce ngeen a dégg loolu. Euh, ñaar lii. Euh, nit nit nit laa wax de man gi su ci kaw suuf bu nekk rek bés bu ñu demee plan de mars mbaa feneen ñu xoo ñu wax ak ñeneen mais ci kaw suuf fii mën lépp amu fi da ngay mën lii tële lii kon ñun xam nañ ko mën ak ku mën lii ak ku tële lii maintenant nag dafa dafa jekk ci nit même bu nekkee yaay président de la république nga def un an à mbas nekk fi amoon fi daaw ma ma am fi ren muy ñaari at yu toftaloo ñu jox la budget mu wóor na ne da nga amoon rece daanaka récession lañ demoon. suñu borom def ci kàttanam ak mën a xéewal la nga am au moins 139 milliards de bénéfice de de recette noonu laa ko mën a tuddee parce que loolu la wax da nga koy sant ba noppi waaye nag nii lii bëggoon naa ko mënuma ko liyee parce que ñëw rek ne kër gi lépp ji munu ne loolu muy benn ci li ci liñ lim lim jot a wax dafa may ay ponk yoo xam dañ koy jukki nañ jël santé président de la république kenn waxut a defut loolu dama koy baamtu plateau bu ma dem dama koy baamtu ci rajo bu ne def na mais li muy def li ci ëpp jubluwul nit ñi waa kër goo xam ne dañuy gobar jaasi dañuy di ñekk fande borom kër gi ne tey jamono yi nekk dañuy serré ceinture ñu xëy mu takk ab ñaar ñetteel nooy def ñu yem ci ñetteel ñetteel lu lu lu lépp luy bees mu jëlal ko ñetteel bi lu ñuy def ñi ngi wax ne réew mi doxul ñi ngi yokkal ni ñenn ñi ay salaire am na ñu nekk ci wet gii di di kaas nañ jël santé dafa may médecin am agent agent de santé yu fa nekk ñoom li ñu yor doyu leen matul matalewul ñuy yóotu loo xam ne ni waxuñ ne baaxut mais opportunité la ñu wax waaw mu ngoog kon waaw yow yow yow yaa dégg loolu léegi ñun ñuy dem ci lépp boo ñuy def ku ne ci bor dem ci ay fonds de garantie di créer ay hôpital de niveau très élevé trois plateau bi macha allah waaw le femme investissement boo ko defee day am entretien day am day frais day dem day am day am un équipement boo ci def mais day am personnel boo fa dugal ubbi nañ fi hôpital fii te doxagutoon ku Kédougou li ñu def Touba baax na macha allah mais problème bi du foofu dafa am ñoo xam ne ils sont dans intermédiaire entre la santé ak population yi ñoom ñoo yor consommable yi ma jox la ay misaal seringue perfuseur cathéter gant compresse li ma mën a lim ak yeneen ak yeneen dafa am ñoo xam dañ ko ay entreprise lañu yor di ko jaay hôpitaux yi dañ leen a kenn fayu balaa ngaa yokk étage da ngay lijjanti niveau bi nga yor ba mu ba mu set ba noppi nga toog teg beneen mais li nga yor mu tëla personnel bi fa fayoo ko pose problème personnel santé bi seen statut pose problème nga yokk ci beneen duñ ne baaxul nag dama koy fàttali il faut que ñuy baax na mais opportunité bi moo tax ñuy wax muy muy muy muy wàllu santé wàllu xëyu ndaw yi état dañ koy baamtu état du créer emploi état vocation du créer emploi am na ay secteurs nag yoo xam ne c'est des secteurs qui de sa souveraineté maanaam état moo ko ŋànkal boppam bu mel ni intérieur jël militaire jël jël jël jël policier jël gendarme état moo ko jël responsabilité lu mel ni éducation état moo ko jëlee sant moo ko jël responsable ci ci ci sañ-sañam mais loolu du emploi loolu lu war état bi la da ko war a def emploi bu ñu koy wax secteur privé moo koy def te ñun dañoo am am ñoo ko gis gàcce cim réew. doxandéem jógee fële waxuma nag Afrique de façon daal jël tab tubaab jógee fee indi maletam ak i milliardam créer entreprise moo ko yow bi dëkk Sénégal juddoo fi say maam juddoo fi créer société bi muy ak bi bi mu créé ak nga yow ñooy tolloo képp société droit Sénégal la bu paree da koy jël toxal yóbbu dëkkam mais du yem ci loolu day rey entreprise yi fi nekk soo buggee créer emploi d' abord il faut que ñu ñu changer ni ñuy ni ñuy ni ñuy tëggee ñun entreprise ni ñu ko defaree fii moo wax ñu jox la sooy créer entreprise doo nekk boo nekkee étranger boo xam ne tu n'es pas bokkuloo ci zone bi nekkoo ci zone UEMOA parce que dafa am am convention xam ne ci bokk da nga beneen dëkk jóge Europe par exemple joge Asie parce que léegi ñi ngi fi commencé bëri jóge beneen jóge États-Unis ñi ngi fi commencé bëri soo ñëwee dañoo waroon a tënk de sorte que am parti boo xam ne fii lay des ci réew mi am koo xam ne moom ngay bokkal ci réew mi li des nag bu neex yónnee si ngeen yóbbu ko mais demeewul noonu tey ay entreprise indienne ñi ci dëkk bi di concurrencer entreprise sénégalaise di leen rey mais ñoom ñoo ñu ëpp devise. ñoom ñoo ñu ëpp mooy te ñoom ñoo koy indil seen bopp. waaye loolu indi ko pare entreprise Sénégal dem di ko jëndi ak di ak ko xam ne devise wante faible yow nga koy nga bàyyi ko ñu tolloo dayoo loolu duñ ko doxalee mënuñ ko yore am réew muy muy muy benn ci loolu ñaareel bi. ci maanaam bu ma la déggee li nga bëgg a wax amul benn ku jógee euh, entreprise étrangère yi dafa war a am benn pourcentage boo xam ne. Euh, nationaux yi dañ ci am maanaam dañ ciy collaborer ak ñoom wala partenaire wala actionnaire lañ ci nekk loolu nga bëgg wax. gis nga Mauritanie gii nga ñu dëkk Mauritanie gii ñuy dekk suñu wet boo fa demoon yow di créer entreprise dañ lay wax wutal koo ko koo ko bokkal. am ah, Mauritanie Mauritanie waaw. mais man du ma ko duñ ko waxee noonu ñun dañoo bokk ci benn zone bu ñu woowee UEMOA ak CEDEAO ñu amay tënk par exemple léegi boo amee registre commerce ak nii nii mën nga exercer ba Mali waxuñu ñooñu bu ñuy wax étranger dama la cité dama la wax. entreprise ay chinois mhm. ay indiens léegi ay chinois ñooy déplacé ko ak seen puis capacité financière bul fàtte ne benn RM bi benn franc yi euh, chinois jamono yu ñu toll quatre-vingt-cinq francs lay lay lay wëccee CFA mu jógee fee moom ak un million de de RM bi indi entreprise am teg ko fi moom moo yow yaa daan dem jënd ji mu indi la ko jaay la ko jaay léegi entreprise yu nekk fi duñ dee duñ duñ sax. lu mel noonu chef d'État buy def discours mais entreprise yooyu ngay wax entreprise étrangère yooyu am ña fay liggéey y a des sénégalais. am gàcc gàcce la yow sax yow sax yow si yow wóor na la wóor yàlla ne sénégal yi liggéey ci entreprise étrangère yi li ak ak yelleef yi amuñu ko salaire yi fi mu toll xam nañ ko SMIC Sénégal xam nañ fi mu toll entreprise boo xam ne day day def ma nañ jël rek waxuma la wax karo nañ jël juste importation euh, denrée alimentaire. Euh, muy muy li ñuy naan boisson yeeg yooyu mais chinois bi indi ko moom moom la gën a yomb parce que moom moo koy defar jouet yi jouet yi. Hmm. entreprise yi nekkoon di di def ay jouet fin d'année ana ñoom ñëpp tëj nañ. d'accord léegi euh, professeur Ibrahima Ndiaye yow da nga wax ne euh, maanaam emploi entreprise hmm. nationale yi ñoom ñooy créer emploi te yow lii nga wax nii su ma la déggee mooy. ñi nga xamante ni ñooy privé bi euh, privé national bi fii patronat bi ñoom amuñu doole léegi lan mooy solution pour secteur privé bi yor lu ëpp ci xëyu ndaw yi. waaw da loolu boo koy def xam nga état ci ci ay wala wareefam day créer cadre. créer créer cadre pour entreprise yi mën a mën a mën a bokk créer cadre mooy dañuy wax booy def nangam lii ngay joxe li ngay joxe li ngay joxe. état bi assuré la sécurité assuré na bés boo demee ba am litige maanaam ngeen mu am mu am bi cooka mballo tribunal yi dox si doxee yoon jox dëgg ki nga xam ne moom moo am moom dëgg. boo créé ba noppi léegi nag waa ji nekk Sénégal nekk Sénégal yow bu génnee capital am moom fonds propre di ko def yow da nga koy danga am noo koy def da am noo koy taxawoo laaju la nga nga nga nga jox ko marché gré à parce que loolu mu am ci réew mi dafa am ne dañuy dekk dañuy def de sorte que secteur bi ñu assainir ko lépp day day san dañuy wax gré sama sama day daw parce que mu ko waxee. da ngay gis boo xam ne daf fiy nekk ñu ne ko euh, daaw marché yi bii nga bokkoon mais pour nga mën a bokk ci bii da ngay exécuter marché boo xam ne rek maanaam exécuter marché bu def 10 millions. ñu ne ko bii pour nga mën ko pour nga mën ci bokk da ngay exécuter marché boo xam ne 500 millions la yow mu daan kii commencé juróomi at defagul juróomi at. bokk ci marché bi mën na ko def am na moo am na possibilité parce que banque kii yaa ngi yow nga ne ko pour nga bokk ci bii. il faut nga am capa nga rampe bu nga nga def nga exécuter marché bu toll noonu ñun kañ la ñuy màgg kañ la ñuy màgg boo bëggee sa secteur privé dox danga koy da koy tatagal da nga koy encadré ba bu bu yegg fenn fi da nga xam ne lii mooy lii lii mu waratoon ne critère boo xam da koy sonal muy muy benn ñaar secteur privé dafa am dafa amee corporation CNES am fi euh, am na yeneen yu fi am. Mm-hmm. ñooñu dafa dañuy am lu dafa am lu ñuy doxee ci réew mi. dafa am waaw MEDES am am lu ñuy dox ci réew mi. ñooñu ngay toogal waxtaan ñu wax ñu wax la condition yi ñu nekkee nga nga nga jéem a drafté yenn yi xam ne mën nañ mën nañ ko def ci par exemple entreprise privée étrangère boo xam ne du bokkul ci CEDEAO bokk UEMOA ñëw indi capacité am di da duma ñeneen ñi. man moo war a indi daal la. mais lii ngay wax ni nag euh, professeur euh, man jàpp naa ne président Macky Sall euh, xam na ko moom en personne te am na ay cadre yu ko war aussi. mais kon kon de kon de dafa gugg. yow da nga jàpp ne ko. déet waxuma ne yow yaa ne xam na. non dama xam nga xamuma ne yow da ngaa jàpp ne xamu ko. xaw laa laaj. dama dama non waxuma ne xamu ko dama c'est-à-dire ñun dañoo nekk ci bilan bilan bu ñu koy def dañuy bëgg bu déwénee bu déwénee bu ñu tegoon jéggi woon benn tànk ñun ku ku ku jege ñu ñu ñaax ko parce que fas buy daw tam da nga koy ñaax da nga koy làbbali mu def yeneen ñeenti tànk ci kanam loolu moo ñu tax soxla mais xam na ko xamu ko amul njëriñ pour man li am solo mooy su nekkee am nañ cadre yu ko war a defalal defaluñ ko ko parce que ñi ngi rey économie dëkk bi d'accord dama la jox benn misaal bu doy waar. xam nga alcool. bi ñuy fayee fajee góom. benn entreprise moo ko fi defar. li ci des yëpp c'est contrebande mu am structure boo xam ne war na mën a ni ñu ko am xam nañoo ne mën nañ ko defar xam nañ koy defaree dañu sax déposer dossier muy def un an un an demi kenn doon jox autorisation. non non non entreprise étrangère mooy ma entreprise étrangère jógee fële ñëw ñu jox autorisation mu def ko. non Sénégal moom plus de 98 pour cent presque si li ñuy fajoo dañ koy jéggaani bitim réew. gàcce la lu mel ni laa lay wax nag boo bëggee defaram réew doo taxaw nekk superman naan defar naa pont sàngam de pont sangam déedéet. mais loolu infrastructure yu baax la baax na kay. a def. mais yow ma la wax sànq ci kër kër nga nekk ci kër gars yi di gobar jaasee ka ka ka ka fande borom kër gi jënd écran plat te wax gars yi ne takk leen bu bu fi bu fi kenn yàq. kon yow li bu ma la déggee mooy euh, train express régional bii nga xam ne. président yaa ko fa yóbbu yaa ko fa yóbbu. Ah. excès <laughs> gu waaw dañoo nekk ci bilan man damay jukki poñ ci discours am. bu jege train bi naa la wax. waaw wax na ci train bi. mën naa mën naa la ci mën ñu boo ñu dem ci léegi dafa am loo xam ne il faut que ñu bàyyi ko baaxul kuy toog ci lu wérengu ko da def ndànk ma ne kuy toog ci lu wérengu ko da ngay def ndànk train bi terre bi képp ku ne baaxul sa gis-gis soriwut. dafa am jamono bu ñu jëm am taux de croissance buñ buñ nekk am taux de natalité buñ nekk maanaam dañuy am te taux démographique ci ay années ndakaar day nekk genre de de benn benn dañuy dankaloo bi Dakar suñ defee terre bi dañ naan ku ku kenn du na baaxut dañ naan nan lañ ko defee ndax am na transparence liñ ko defee niñ ko montee nan la ñu ñu ñu leeral ko askan ni ñuy xam man dañ may wax ñi naan 800 milliards ñi naan ma 1000 nangam milliards kii naan la non dugal ci woon taxi lu mel noonu la nguur di éviter su bëggee askanam déglu ko bu kenn ne baaxul parce que fi ñu jëm dañ koy soxla ji noonu lañ daan wax ci autoroute bi naan ay éléphant blanc la. bi autoroute péage bi génne ñëpp xam nañ ne am na njëriñ donc terre bi sa man fi ma bokk ak ñi ma àndal xam nañ ne baax na mais transparence bi ci war ak li ñu war def. pour que nit ñi nit ñi xam ne li njëriñ la pour ëllëg. Mm-hmm. dañ ko waroon dañ ko war dañ ko dañ ko waroon leeral muy benn ñaareel bi mooy soo yoree boo jabootee nit ñi da ngay waxtaan ak ñoom diis ak ñoom di leen xamal li ngay def lu mu doon. Mm-hmm. waaye xëy rek nekk sa quatre murs def benn def sa projet génne ne lii daay def jamono bi ñu koy def am na leneen lu ko gënoon farataal. waaw amoon am jamono bi ñu ko doon lancé. Mm-hmm. amoon na leen lu nekkoon faratay Sénégal defuñu ko. xëyum ndaw yi xëyum ndaw yi farata la woon. waaw d'accord mais euh, mais professeur yaa ngi wax ne terre bi euh, lu baax la. du dëgg waaw mais par exemple tey est-ce que bu ñu jëloon euh, li ñu defee terre bi. maanaam def fa BRT maanaam tey comme BRT bi ni ñu ko def noonu. bus transit rapid mais ci biir dëkk bi ni mu xatee nii. est-ce que mënuñu woon di wax naan TER bi ma ngi jugee Diamniadio jëm na Kaolack wala jëm na Bamako wala jëm na feneen ak feneen est-ce que TER bi ci biir dëkk bi euh, lu yanu maanaa la rawatina luxe bi nga xamante ni ñoom moom lañ si dugal ñu ëpp ci Sénégalais yi seen loxo jotul seen ginnaaw rawatina trajet bi ñu ko def muy trajet ñi nga xam ne ñooy way góorgóorlu yi te bu dee trajet bu way góorgóorlu yi mooy ñi ëpp ñu nekk ci informel bi ñoo ñu tamit boo leen waxee ne train bi doo fi yor bagage bi doo fi comporté woon yi train bi kan moo tax kon réellement ñu defar train bi da nga da nga da nga def sa benn suppu kànja bu baax li ci réew du bëri fi mu toll nii il faut que ma sepp benn par benn BRT baax na TER baax na bu ñu ko mënoon am ba Tamba sax moo gën mais opportunité def infrastructure dañ koy xalaat problème nag problème mu problème mu sañ-sañ la yi ne ñu yéen ñu nag mën ak yow keneen ñeneen ñoo jël suñuy lenge jox ko ne ko doxalal mu ngi doxal ñuy xool. dafa am loo xam ne opportunité la ndax moo jaroon nañu def comme déet kan lañ defaral BRT bi Sénégal yëpp lañ ko defaral mais il ñu wax ñu wax dëgg te yàlla tax. mais boo wax opportunité il faut nga wax transparence wax euh, pertinence bi moo wax naa la ko sànq. mais mais léegi ñi nga kan lañ ko defaral Sénégal lañ ko defaral. mais il ñu wax dëgg yàlla tax parce que ku dee uuf see loxo. am na loo xam ne boo ko bëggee dëkkee dëkkee ci àll bi nga bëgg ko dëkkee ci biir dëkk bi mu lu nekk du sotti ville dafa am dafa am lu ñu ko dëkkee ville dafa am nu ñu koy nu fa fay dëkkee maanaam buñ ko bu suñu suñ ci bàyyiwul xel lépp lu ñu fi defal ci infrastructure dootu amati njëriñ il faut ñu bàyyi boo di waxtaan di wax di boo di di boo denteeg suñu biir ñun ñëpp ay Sénégal lañ mais am na loo xam ne bu tollee ci wax dëgg dañuy toog waxtaan waxtaan suñu biir xoolante suñuy bët waxan dëgg transport ni ñu koy doxalee Sénégal bu ko bëggee boo ko bëggee def ci terre mbaa def ci BRT bu jarul ñu koy defar man ma war a jógee Dakar dem dem dem jógee euh, pa euh, géejuwaay war a dem dak ville mu yóbbu juróom-ñaari walis jël samay ginaar gerte gi ma bojj lépp ma dugg moom ci dugg moom ci ci transport mais am na ay moyens adéquats am naa yeneen possibilité pour def ko il faut que ñu waxante su dëgg suñu biir donc ça demande éducation ça demande sensibilisation ça demande la formation pour nit ñi xam ne dëkkinu taax ak dëkkinu àll bokkul. d' accord léegi euh, d' accord léegi professeur. il ñu d' accord tamit aussi kon ci ci beneen côté. ndax xam nga tey. Euh, boo xoolee diggante Tëngéej gi mu jugee. Euh, ñëw ba ville maanaam trajet bi ñu ko def endroit bi loolu tamit aussi dafay jaral di bàyyi xel mais bu dee train bi nekk France moom nga bëgg nañ koy jëfandikoo nga bëgg ñun ñu jëfandikoo ko fii train dafay am loolu moo taxoon mën a la fi ñu def train waroon nañ faa mën a def BRT wala beneen moyen de transport mais boo fa bëggee def train express régional ci ñi dëkk Tëngéej war a ñëw Dakar te ñun ñu ñun ñu ëpp ci Sénégal yi dañu nekk ci informel bi te informel bi nag sëñ bi ku ko tudd na xanaa di nga tuddi bagage d' accord naa li nga wax du ma ci dindi dara ci li nga wax d' accord naa mais dama bëgg ñu dégluwante tuuti da nga ne fi mu jaar kii nga yor ni du portable mhm. dernier cri la mhm. noo def ba manipuler ko jël ko jox ko jox ko ki nekk ci yi bi ngi ngay wax ne euh, informel nekk nu muy def ba manipuler ni mu leen lijjanti ba écran bi toj même chose suñu joxee maanaam outil bu bees dafa am lu mu lay laaj waxuñu nekk tubaab tubaab soxlawuñu ko ñun euh, waxuma ne man man sama classe gi ay décomplexe lañ man daray tubaab safu ma daray tubaab safu ci ñoom laa jàngee nag mais daray tubaab safu ma man décomplexe la donc mais dafa am comportement bu bu ma naree man mën a nekk nekk informel war a xëy di jëm jaay mu wóor ni ma ne am naa beneen moyen pour jiital samay bagage jël BRT bi dama koy def loolu ci ci ci ci ci perspective la bokk ci ci mu xel la bokk dooloor sa bopp doo lor ñeneen ñi loolu loolu dafa jar a bàyyi xel te diine sax na ko santaane loolu benn la ci mais bu ñu bu ñu des si terre beeg yooyu day day yàq discours président dafa am ay yu bëri yu yu yu mu nas ñu nag duñ nekkuñ ci politique politicienne maanaam xaste rek déedéet man damay wax ne fii lañ jëlee xeer bi wax na fi ñu ko yóbbu baax na mais mais buñ defoon nii gën ma jox la misaal ci xew yu ndaw yi nee na dañuy nekk dina créer su ma jàppul 3000 euh, te ma jàpp 3000 nangam maanaam ñetti juróom-benn junni yi xëy la créé ci ci enseignant yi dama ne man ma wax la sànq mooy tàmbali ci ndorteel ne emploi emploi enseignant du emploi loolu état la concerné bàyyiwu ko privé moom moo ko jël boobu cinq yi mu ci yokk ñoo ñooñu ñoom daam Diop ak ñoom dinañ wax non ndax d'accord nañ jëm ndet ndax niñ ko defee waaw baax na am ndet mais boo bëggee créer emploi dafa am loo xam ne fii daf fi am secteur privé bi di di ko dund nekk ci coono mooy maanaam capital xaalis ak ñi soxla nga am ay banque banque yi fi ne yëpp ñu leen def na nag ay effort tam bi ñu tàmbalee gis nañ fi BNDE gis nañ fi Banque de Dakar gis nañ fi yeneen mais ba tey amul jeexital parce que dañoo soppiwul doxalin soo ne damay jël 200 milliards parce que am na fi am na fonds bu fi nekk 200 milliards dama koy jàppale secteur privé dem dëxañ ko ci banques yi banques yi mécanisme bi ñu am pour financer ba tey moom lañ yor boo lañ bu ñu leen jox 10 millions da nga leen indil benn garantie boo xam ne def fukki millions fa lañ koy jëlee ki amul 10 millions nan la ñuy garanti fukki millions bu ko naroon sax da ko da ko jaral dajale mu def dërëm tànk ba mu yegg ci ba mu jëm président Macky Sall ci loolu dañ koy xaar dañuy wax ay nano crédit xam nga nano crédit jël ay ñetti junni juróom benn junni di ko jox nit ñi pour ñu finance pour ñuy jaay gerte ay ay tàngalamant am na lu ko gën gaaw am na lu ko gën a farataal entreprise yaa ngi fi dafa dañuy am ay ay numérotation il faut que ñu nekk ci proposition parce que dafa am solo débat politique bi ñu ko yàq dafa yàq dafa yàq réew mi économiquement bu ñu nekku ci proposition duñ mës a dem ba at bu jot dañuy def benn tànk ci kanam ñaari tànk ci ginnaaw IPRES am fi caisse sécurité sociale am fi ñuy rafetlu déjà ñoom ñaari sociétés yu ñaari entreprise état ki yooyu sociales yooyu dem créer benn numéro identique léegi bu ñu bëggee dugal koom ci réew mi président nee na am na 139 milliards yokk ci résultat ñun dañ koy wax ne am na beneen pexe boo xam ne mën nga ko doubler par 4 bu ko ba 5 bu ko bëggee mais ci entreprise yi fi nekk nekk ay boutique mbagg kese entreprise dañu yoon légalement constitué duñu recruter kenn di encaisser ay milliards ñooñu dafa am lu ñu leen di nu ñu leen di tënkee ba duñ la mën a rëcc Sénégal ñoo bàyyi informel bi jàll informel mën nañ ko formaliser mais dañu leen bàyyi lu ñu def mais dafa am nu ñu leen nu ñu leen di formaliser dafa am impôt lu muy doxee am douane lu muy doxee ñoom ñaar la ñuy lëkkale def benn numérotation kese parce que jamono ñu toll nii PPM moo pour douane ku am ku am nii nii beneen numéro bi doyoon na pour ñu mën a identifier kan moo dugal bagage ci réew mi comme ça impôt dina mën a suivre à la trace bu ñu defee lu mel naa la assurer fii ak parce que entreprise bi nekk nekk di am milliards te jëluñu dara benn jarbaat lañ am teg fa teg ko fa ci kees mbaa ñu am seen benn benn sët teg ko fa kenn xamul nu mu toll ci réew mi booy defaram réew bu ñuy waxtaanee réew ab bilan dañuy nangu ne président nee def na nangam ñu waa ñu naaw dëgg la moo ko def nee na dina defi nangam yàlla rek xam. mais ñun ci lim def dañ ne ko da ngay yokk lii dafa bëgg yokk lii c'est 39 milliards na fexe bu projet boo xam ne dans le cadre de l'administration sénégalaise douane ak impôt domaine ñu lëkkal leen benn numérotation. d'accord li ma wax nii nag. Ah. ñu yor entreprise xam naa xam nañ li wax li muy wax. ñi nga xam ne dans le secteur privé ak xam nañ li wax waa douane xam nañ li muy wax. impôt xam nañ li muy wax mais suñu yi tamit est-ce que duñ faral di par parloo ci secteur privé bi am say homme d'affaires wala nangam. réew mii ba mu ba mu ko léegi ku fi ñëw. da ngay am say homme d'affaires li gën a gën a garaaw sax li gën a garaaw da nekk sax ci benn benn niveau étatique créer li ñuy wooyee véhicule financier maanaam da ngay créer benn entreprise boo xam ne da nga koy jox si kon il faut ñu delluwaat ginnaaw xoolaat ñun suñu bopp te réew mi tant que ñun defaruñu suñu toogaay mënuñ ko bougé loo nañ wax loolu nañ fi xëpp alal du leen neex du bougé parce que toogaay yi ñoo jekkut te bu ñu ñëwee ne la defal la sa toogaay nag da ngay xool yow nag nag ni nga toogee nan nan la misaal mi gën a gàtt dañoo am code des marchés publics code bi mu amul lu ko gën ci ci Afrique mais ba tey gars yi ñu ngi wuruje ka ka sàcc ka ka ger xam nga lu ko waral. dañuy def lancer appel d'offre mu yoon tënk leen ci kan la ñuy def ouverture pluie ñu téye ko fa ñeent ñetti weer ki may marché bi li may wax ni marché bu am la waxuma ay gilee ba gént man fi ma bokk ak li may def jombal naa sama bopp di wax amul nga lancer appel d'offre mois de février daaw. Mm-hmm. nga xaar ba décembre ubbi pli mais li gën a garaaw secteur bu stratégique nga koy def nekk milliard préparer pour préparer campagne ki nga koy jox dafa am nooy def ak moom loolu mi ngi am ci réew ba léegi du ay lu ñuy du lu ñuy laam-laame tam li ma lay wax ni jombale naa sama bopp. di wax wax lu ay safaan. marché milliard ak lu toftal nga joxoo ko xam ne mu waxuma la munu ko mais am na ku def moins dix ans. maanaam yow kii def na 1 milliard 200 li muy wax ñu may dégg xëy na ci lañ bokk kii def 800 millions kii jiitu ko fi fukki at ak juróom kii nekk fi ñeenti at nga jox ko kee te ñu xam ne ba daaw ba ñaari at yépp moom rek ko fi gañe loolu bu teeylu xel lan la war a doon nga def nga lancé ko février daaw xaar ba décembre oo ko ubbi pli ba pare def ko en catimini en vitesse ba pare war a dem campagne électorale lan la war a doon yu mel nii lañ war a dindi ci réew mi. te da leneen leneen lu lu gën a garaaw loolu mooy ñi koy def dañuy yor ndombal tànk yoo xam ne gàcce la waroon doon sax ci ñoom ñu bokk ci lu mel noonu. léegi euh, professeur euh, Ibrahima Ndiaye jàpp naa ne discours bi euh, am na nag ay procès structurants yoo xamante ni moom jàpp nga président teg na ko ci 2021 bi. naal na nee na dana lancer première pierre. non 2021 bi amu fi lu mu fi def loo xam ne doo yem si baax na mais da nga naan jàpp nga ne transparence am na fa jàpp nga ne opportunité la jàpp nga ne euh, am na pertinence aussi. bu bu bu bu transparence amee dama koy wax mais man yi ma fa gis ñu lancé yëpp transparence amu ci mi ngi def nag mi ngi tabax ku ne Macky deful dara boo yeewoo beneen réew loolu la war a doon mais mi ngi def mais li muy def jubluwul askan wi transparent wul maanaam. mais mën ngaa def loo xam ne saafara bu jur jàngoro la quand am na fi kay. mais loolu laa bëgg expliquer xam nga def kese def kese mën nañ la toggaloo nga dem togg togg nga bu joxe nga ne togg nga mais est-ce que 20000 yi ñu la toggaloo ceebu jën est-ce que 20000 francs yooyu nga si def est-ce que joxuñ la 20000 pour nga togg ceebu jën 20000 nga ñëw francs. dé déggu déggu fi kilo ñebe ñeenti eh, ñaata juróom-ñetti junni. waaw juróom-ñetti ah juróom-ñetti mhm. francs déggu ko fi. Mhm. lu misaal maa ngoog déggu fii ci réew mi ñu ne ñu diw nangam. fi mu jiite am na milliard ak lu toftal kenn xam foo mu jaar dañ ko daan leblante seen biir ak nangam nangam fii la amee fii la xewee mais nag dafa am détail yoo xam ne il faut aussi ñu koy wax booy boo booy def politique du la teree wax dëgg ma jox la misaal Lonase li li fa xew directeur moo def plainte directeur bi def plainte loolu baax la mm-hmm. bu kenn baaxul moom moo def plainte kooku da nga koy rafetlu mm-hmm. li xew ci inspection trésor mécanisme état moo ko moo ko fësal moo ko fësal de. bu ñu nee nangam nangam xam nga Sénégal dañuy def fa dañuy dañuy def politique pour politique rek. waaw état moo ko fësal. kon kon ñoom ñi ngi ci ñi moom mi ngi def li mu wax maintenant. mécanisme état moo ko feeñal mais tey bu dee tey par exemple tey mille scandales mille scandales nga feeñal LONASE boo xamante ni presque mu tudd deux milliards. nga dem trésor public ba du sax 5 milliards ci ñaata ministère ñaata direction ñaata scandale lañ fi tudd euh, yu mel noonu. est-ce que par ma jox ma jox lay misaal Prodac. mais ay bale kenn déggutul. waaw man parfois euh, peut-être di nga ne euh, loolu directeur bi moom moo porté plainte comme ça pour personnellement moom mu bañ a ëllëg si biir mën na dal si kaw mbir moomu pour mu setal boppam mais. mille scandale daal vraiment nga jël si ñaar ñett. waaw man man man damay damay wax sa yàlla tax li fi am ci réew mi diggante Macky bi Macky Sall ak léegi lu doon jàmbat ci Abdoulaye jàmbat nañ fukkam ci Macky bu nekkee góom bi fee daa tàmbali woon unni na fi ca Macky bu nekkee góom bi undi na ci Abdoulaye Wade dagg nañ tànk bi ci lu nekk ci tànk bi la nekk donc lépp lu fi ñëwoon daa mel dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko yokk ñun li ñu yaakaaroon mooy xëy na li ñu daloon ci Ablaye ci Ablaye Wade dañuy tisati fii maanaam bu bu bu amee sax. du du am du am doole. ger gi dina wàññeeku parce que moo ko diggee woon gouvernance sobre et vertueuse euh, par parloo bi dina wàññeeku euh, làq doom dóoru doom dina wàññeeku mais gis nañ lépp li ma lay wax ni yëpp ñu ko fii ñëpp teg nañ seen bët perspective yi nekk suñu kanam nee na dina def fi nangam ci ci di ñëw mais li ñu wóor bu wóor mooy lépp lu mu fi diggee dañ koy dañ koy xaar li mu wax nag ñëpp noté nañ ko toog di xaar. maintenant defar ay infrastructure parce que Sénégal rek du Dakar loolu foog ñu koy bamtu pour ñun ñi ñuy sàkku jël réew mi ak ñi nekk ci réew mi ñu xam ne du Ndakaaru kese mooy Sénégal te ay la yéew nag 2012 amoon nañ yaakaar ci Macky Sall danaa la jox ay misaal ci ay projets yoo xam ne man teg naa ci bët gis réalisation kenn nettalu ma ko parce que damay def tournée Sénégal Puma day def boucle. zone frontière frontalière yi day defar ay ay ay poste santé day defar ay case santé day defar ay day joxe def accès réseau téléphonique et autres. man case santé yu équipé. yu équipé man teg naa ci bët. PUDC teg naa loo xam ne man dama fa daan jaar di di jàmbat mu defar ko euh, boo jéemee ba ma leen odaar fu ñu wax ñu may déglu jëm nganda PUDC moo ko defoon piste boo xam ne da dawal oto bu mu a doon def 5 yëpp mën a daw. da nga bëri poussière nag mais piste moo ko defar man xam naa loolu. mais saytu woo transparence bi. du moom laa lay wax cest à xam nga def. def def mu baax. Ah, ah. def mu baax da nga naan nangam gi def na ko. def na ko mais ni mu ko defee jub baaxut jublu réew muy muy benn Macky ba mu toogee léegi liñ gën a xas liñ gën liñ ko gën a reproché mooy justice te bokk na ci li li tax ñu fal ko de. Mm-hmm. dóor doom làq doom bokk na tax ñu fal ko. mais gisuñu gisuñu ko au contraire dañuy am sax des dañuy jékki-jékki am tiitaange xëy na ne moom moo moo moo teg yenn dossier moo teg coom-coom ku ñu yaakaaroon ne yow yaay da nga da nga tëddee njaaxaa njaaxaanaay lu mel noon dafa dañ dafa ñu koy ñaawlu maintenant réew mi nag euh, dafa am il faut ñu ñu waxante dëgg bu ñuy def politique dañ def politique di def ay proposition débat politique yëpp boo ko seetloo dañuy wax ba géex kenn du la joxal benn firnde waaye newal kenn loo xam benn proposition bu jëmee réew mi kanam te loolu moo fi samp nga mal moo fi samp ay reenam ci ci ci réew mi débat bi politique politicienne la Macky Sall def na nangam neen naaw def na nangam mais nii la ko waroon defee. mais xam nga docteur. waaw euh, professeur. xam nga yow man nga joxe proposition bu baax bu rafet président jëfe proposition bi ndax yow président mënoon nga ko na ko par exemple exemple mënoon nga ne ko yow président kat terre bi. mënoon nga ko jëlee jam ñaajo yóbbu ko cees président jëlee ko jam ñaajo yóbbu ko cees na proposition professeur Ibrahima Ndiaye la. mais def na proposition bi mais est-ce que am na transparence man dama jàpp ne ñun Sénégal li ñu gën a sonal mooy lu ñu war a jëndee téeméer wala loo xam ne tey yeneen réew yi ñu war yépp ñoom téeméer lañ ko jëndee ñun ñu jëndee ko 5000 francs surfacturation surfacturation xam nga proposition surfacturation loolu léegi boo si doon joxe proposition tey ban ban xeetu proposition nga si joxe xam nga sànq wax naa la di ko di ko traîner dafa am mécanisme bu simple boo bëggee boo bëggee ger nag daanaka moo samp réew mi. Ah, waaw. ger moo samp réew mi. léegi dëgg rek réew li ko maanaam ñun sax ñun sax ci suñuy doxaleen suñuy waxi suñuy waxi da ngay xam ne dafa am jeexital ci ñun. da ngay jóg war a dem lijjanti fenn ngay woo rek foog nga woo kenn ne ko. <laughs> koo ko koo fa xam maanaam ñun mi ngi si ñun. il faut que ñun d'abord ñu nangu ne. mais état teg aussi am na sa responsabilité ndax boo fa demee moo ko. dama la wax benn mécanisme bu doy waar nee naa code des marchés publics bi ñu yor ñun. amul bu ko gën ci sous région bi. waaw wala gars yi man pexe la ñuy def ba ba ba jéggi ko. xam nga boo buñ la buñ la ubbi woon bu ñu ubbi woon benn marché ubbi pli nga wóor na la waaj dala dala dañuy def normal nga nga nga assigné dugal cinquante mille francs dem ko fay ko kees kii. li ci ëpp da ngay ñàkk xamulu ni des fois conformité ne ay ay ay ay baat baat yoo xam ne da lay wóor kii vraiment doy di moo doy waar mu tax mu def ko non ma jox la misaal rek juste ci centre rek centre rek moo ma intéressé nga lancé appel d'offre parce que li il faut ñu am ñu xam li may wax nga lancé appel d'offre pour appareil échographique yow yaay moyen dix ans sur marché boo xam ne joxe nañu ko à trois cent et quelque trois cent vingt millions yow nga nekk moyen dix ans deux cent baax rek écart bi cent bu ñu lay notifié ne yow joxuñ la ko xam nga lu ñu la wax te sonde yi ñu laaj nee nañ quatre sonde lañ laaj ñoom dañ lay boolante ne sonde yow joxuloo sonde sonde orthopédique ñi nekk ci médical yépp xam nañu loolu amul li may wax nii firnde moo fi am maintenant doo jël sa fukki junni dem di ko déposer quinze de consignation pour ay recours parce que xam nga ne da ngay ñàkk foofu la secteur privé bi toll. li may wax nii firnde yi wër bu ñu ma wooyee ma génn leen tege leen kayit wax leen marché nangam marché nangam soxla parce que xam naa ko. xam naa ñu ci bokk kii man notification yi maaye moom lu mel noonu bu amee cim réew te au plus haut niveau dangay ngay ñëw bokk ci marché ñu ne la ah bii de réglé nañ ko bu yàgg nga ne ñu ne bii réglé nañ ko bu yàgg billaahi wallaahi su borom jombal naa di fenn wallaahi taalaahi dañuy wax marché bii réglé nañ ko bu yàgg te appel d'offre amagul appel ma appel d'offre amagul fii la am ci réew mi fii li may wax ni aw ma ci ay ay ay xel ñaar kon fan la réew mi jëm bu ñu su ndimbalal suñu borom kaay la Senghor. mais nekkoon na fi mais mooy même mooy man même naan Senghor nekkoon na fi dem jox ñu Abdou Diouf ñu jëlee ko fi ñun ñoo ko fi jëlee. Abdoulaye Wade ñoo ko ñu Abdoulaye Wade nee fi ñu jëlee fi Abdoulaye indi Macky Sall xam nga man la laay ñaan yàlla na suñu def loxoom dim ndimbalam ci kii di ñëw nañu tànnal. c'est-à-dire nañu tànnal ñun Senghor ñun Abdou Diouf ñoo ko ñoo Senghor moo ñu ko tànnal ñu ñoo tànn Abdoulaye war ak Macky Sall d'accord mais nañ ñaan yàlla tànnal ñu bi yoon. waaw non mais professeur. tey par exemple tey xam nga tey dafay am li ñuy wax euh, sàcc gu ñu organisé sàcc gu ñu organisé mooy doone détournement am na fa doone doone amul appel d'offre. day am loolu laa lay bëgg li a li ñu gën a sonal li a sonal mën ma lay wax nii ah. xam nga débat bi yàq nañ sax discours président dama lay wax li ma lay wax nii firnde yu wér laa ci am. waaw non li ma la bëgg expliquer mooy. maanaam càcc gu ñu gu ñu gu ñu ñu organisé mais moo gën dañuy lancer appel d'offre am na yoo xam ne duñ sax lancer appel d'offre bi appel d'offre bi génn dañ di diw moo naan la lii joxe nañ ko. lii mën naa la dutal baaraam ñetti secteur yoo xam ne. marché yi joxe nañ ko ca Ali Ati Malick Awa kañ ko jox ma nga tëdd di jaaxaan. d' accord jërëjëf euh, professeur euh, Ibrahima Ndiaye léegi ci discours bi tamit gis nañ ne président wax na mais euh, am na ay ay ay fraude ay scandale faux euh, billet passeport diplomatique dem ba laal institution yi gën a mag ci réew mi te président yooyu ci yàbb bi gis nga euh, crime organisé wala bokk euh, criminalité société bu nekk da koy créel boppam société bu nekk dafa am crime organisé boppam boppam maintenant li xew na ki di ci nguur ak Macky Sall dafa jéggi dayoo Macky dafa romb jamono yi Abdoulaye Wade alal ji naam ci ren bër ci la bëri bëree mais doxalin bi dafa des ba tey ci mécanisme mais lan ma waxul ci scandale yi ma lay wax nii. mais nag bul euh, discours fan la ne day tànn Macky Sall loo ko contre contre ko loo ko bañ bañ bañ xam nga ne moom mooy président de République kon moom moo am sañ-sañu tànn la muy wax lu mu dul wax. dañ ko doon xaar nag ci ay ponk maanaam enseignement supérieur waxu ci dara kenn déggu yéegul sax yàbbi ci dañ ko doon xaar ci sécurité waxul yàbbi ci dañ ko doon xaar mu masawu fukki ak ñeent yi fi amuñu fi génn àdduna ci 2021 lañ génn àdduna. ci événement yi amoon mars buñ ne ma wax na ci le 8 mars le 8 mars waaw d'accord wax na ci mais moo jawwate réew mi yëpp dañ ko dañu xaar mais moom moo tànn ci bilan am lii lay wax. waaw mais xam nga tey euh, professeur sànq yow bi ngay commencé da nga wax ne. Euh, président soo ko déggee muy wax day mel ni moom moom man lépp day mel ni fenn amul faay dafa mel ni fépp nga dox mais dama ne mais pour maanaam moom honnêteté am rek est-ce que jàppoo ne mënoon na bu ko neexee wax ne def naa fi ay hôpitaux bu ko neexee ne def naa fi train waaye ay la yëwan mu naqarlu euh, mbirum trafic passeport diplomatique yi nga xam ne dañu siy tudd présidence di si tudd assemblée national di si tudd ministère des affaires étrangères ak fi àdduna toll insécurité bi am rawatina ci sous-région bi trafic passeport diplomatique léegi trafic moom bu xase ba am passeport diplomatique bi mën naa nekk ci loxol ku ne imagine mu nekk ci loxob koo xam ne du sénégalais def njombe ci beneen réew wala ñu jàpp ko ci beneen réew mais loolu man jàpp naa ne scandale la bu rëy boo xam ne président waroon na see mën a wax. du bii rek am na yeneen yeneen scandale yu ko gën a rëy sax. mais au moins mu naqarlu ñun dañ ko doon xaar ci nangam dañ koy xaar ci nangam mais moom moo am sañ-sañu def choix def na choix léegi nag li nga wax muy dëgg dafa am dossier yoo xam ne c' est brûlant c' est sensible dañ ci waroon teg baaraam. même bu nekkee da koy da ci effleur rek jàll parce que dañ koy xaar ci transparence dañ koy xaar ci mu régler problème mais déjà problème yooyu yaakaar naa mi ngi ci yoonu loxo yoonu justice su ma juumut parce que am na enquête jàpp nañ ci jàpp nañ ci ay nit dossier baa ngi continuer pour man kon bu ci waxee dama yaakaar day day ay minutes ku war a def discours vingt cinq minutes nga yokk ci loolu da nga def vingt sept dem trente loolu loolu moom sañ-sañam la moom man du ma bu dee tey par tey xam nga tey mën nga ne dossier maa ngi ci loxol justice mais lu fet que mu ne dossier bi maa ngi ci loxol justice loolu rek mooy wax si mais tudd ko benn yoon. xam nga Sénégal dañu bëgg day day yow dañu am ay dañu am dañu am ay ay ta dañu ay tàmm laago la quoi tàmm laago la Sénégal dañoo dañoo dañoo am laago ci yéen dañuy bëgg ñoom niñ ko xalaatee niñ ko bëggee nga defee ni ko même ba ci discours yi souvent chaque année ñu ne waroon na wax li waroon moom moom lañ sañ moom lañ jox léegi ne ko doxalal. ñun kay nañu yor suñu wat yet suñu yet ñu ngeeg suñu carte mooy yet yi nañu yor yet rek toog di xaar lim doxal bu waxee ba ma ba ba géex jubluwuñu buñ ko war a jëlee jëlee ko fi maintenant duñ ne ko rek waroon ngaa lu tax waxoo ci lii moom moo xam lu tax waxu ci mais xaaroon nañ ko ci te lu mooy yoon da ci waroon wax mais waxu ci nag wax dëgg yaram de pour man dañ ko dañ ko dañ koy jéggi nekk ci leen d'accord léegi euh, bu dee lu jëm ci wàllum euh, njàng mu kay mi aussi dégguñu ko mu wax ci yow en tant que professeur enseignement supérieur lu lu lu lu doy waar la ci réew mi dama lay jox jox ma sax waxuma la condition travail yi njàngale meeg yooyu ma jël condition étudiant yi kese gis nga ni li li xew ci ay ay intoxication alimentaire daa mel ni dara xewut nit am na ko sax faatu la ñu wax la ñu wax aw ma firnde yi parce que dama ni ma ko ni ma ko déggee ci titre journaux yi mais waroon na ci moom ci discours am mu ba mu baral ko pàcc comme ni mu ko defee ci éducation mu baral ko pàcc am lu orientation yu ci joxe wax ne lii lii lii lii nangam ji la moo fi newoon def na ci nangam ji nit ñi dégg parce que au moins dañoo am dayoo ci réew mi kuy defar ab dëkk éducation enseignement supérieur moo ëpp solo gis nga milliards yi ñuy wax ci euh, pétrole beeg bu ñëwee su nekkee formation beeg njàng beeg njàng la baaxut day mel ni euh, mbooy muñ taal alal ji def day dem rek parce que formation ak éducation ñoo yor réew mi te enseignement supérieur kenn la bu am dayoo ci réew mi pour loolu léegi nag def na ay mbir. da nga ko fulaa loolu. wane fulaalul ko day day day niru day niru day niru politique politicienne parce que tabax na fi ay université yokku na yokk na capacité université yi fulaalu ko mais dayoo bi ci war pour man mën na mën na ko yokk il faut ñu il faut ngeen ngeen ñuy jàppale ñun ñuy ñëw toog fii gars yi bu ñuy wàcc yoon ngeen waxaat ci wàccu leen yoon. waaw ah, non xam nga li tax man laaj la loolu. Hmm. mooy boo ñëwee nañu université Amadou Mahtar Mbow. yow ministre de de l' enseignement supérieur jamono jooju Mary Teuw Niane taxaw assemblée nationale. Euh, ne phase A bi 2017 dina pare. ba jot a jël ay nit di leen tàggat ci wàllum. Euh, di leen technologie bu bees bi. yóbbu leen defal leen séminaire comme ça tout ça. Mm. ne 2017 ñoo ngi si 2022. ak njàng ni mu amee solo. ak ci université ni mu feesee. nga bëgg ñoo xa mais mais sëñ bi. gis suñu waxtaan bi. waaw dafa am loo xam ne moo ko lal toujours mooy maanaam ni ñuy joxe marché yi. nan la ñuy suivre marché yi kan mooy contrôle derrière maanaam jàngoro ma maanaam réew mi daal màgget la màgget la fu fu ne métt gis nga li marité waxoon ñu dawal cinq ans boo ko takkal mu layil la ko da koy lay mais est-ce que ñi defoon faute yoroon procédure bi ñoom dañoo def faute ndax état bu jox na leen xaalis exécuté wuñ wala ñoom dañoo exécuté état bu jox leen xaalis ñu leb ci banque banque yi leen loolu dafa jar saytu marché public yi dafa am loo xam dafa am lu doy waar lu ci am dañuy jox nit sax marché mu tàmbali ñu ne ko dañ ne koy defal par tranche mu daw benn étape ñu jox ko bu jees état bi yéex génne mu dem moom mu mu teg jël banque tegale tànkam tegale tànkam ñett ñeenti weer ñu indi ko xaalis mu commencé waat am na retard déjà donc boo gisee daa mënuñu daan wala ñu wax am na lu xew yu mel noonu nag il faut que ñu dindi ko ci réew pour ñu dindi ko nag maanaam booy diggee dara day fekk li ngay diggee wóor na la ci jot parce que état noonu lay doxee. wóor na ma am naa entrée wu 500 milliards bi ñëw am naa projet 250 milliards am naa beneen projet bu 600 milliards su ma boolee li ma daj du ko lu ma li ma li ma war a am du ko mate ma war a wuti xaalis. damay def projet par étape. mais loolu xanaa euh, <laughs> ministre bi ñu dénk wàllum économie et plan kay xanaa moom war na mën a di planifier loolu. ah boobu nag bu ñëwee fi da koy togg laaj ko <laughs> bu ñëwee ko mais. te am na am na doxalin bu bees aussi ci ci ci ci ci ci gouvernement bi euh, loo xam ne en général yow loolu yàgg nañ koy joytu opposition yàgg na koy joytu bu amee nag boo ko waxut ak naa fexe lay doon mooy budget programme yàgg na fi Ablaye Wade jamono Ablaye dañ ko daan ñii di opposition maa ngi koy fàttali comme démb am na ñoom li ma leen tudd dañ ko daan naan na il faut que ministère yi ñu bàyyi leen autonomie am budget programme léegi nag il faut que mu am ay sanction maanaam bu ñu joxee joxee ndombal tànk jox la budget nga dawal dañuy xool ndax liñ nga jox mën nga ko wala mënoo ko nekk ministre du mën a yomb na du mën a yombul mais nekk ministre ba pare mënoo am résultat te ñu jël koppar jox la il faut ñu sanctionné xel nangu ko xel nangu ko d'accord léegi euh, professeur ñu jeexal foofu rek doog a dem fenn waxtu wi lekk te mu jeex léegi ci ci Sénégal gi euh, dafa am loo xam ne peut-être mën nañoo wax ne lépp priorité la mais dafa am ay secteurs yoo xamante ni tey ay secteurs yoo xam ne tey euh, bu sooxee ci réew rek jàpp naa ne réew moomu mën naa dugg ci giraawaal yi ndax li nga xamante ni tey moo jëm ci wàllum éducation surtout enseignement supérieur bi ñi koy ŋàññi ñi koy ŋàññi bëri na enseignement supérieur bi euh, li nga xamante ni tamit moo jëm ci wàllum justice bi ñi nga xamante ni ñoo ngi koy wax ne Sénégal justice bu euh, tëddeewul njaaxaanaay wàllum transparence tamit ñu baree bari dañuy wax ne réew mi lu si baree bari bari amul amul transparence euh, wàllum santé tamit gis nañ ne suñu plateau médical bi Euh, ñu bari jàpp nañ ne dafa nërmeelu ci yenn yenn gox yi beneen mooy équité sociale ñu bari jàpp nañ ne amul Sénégal point yi yëpp boo si doon doonte benn commentaire bu gàtt. nañ jël équité territoriale ba pare wax naa la fii Sénégal du Dakar kese. da ngay da ngay da ngay dem ci àll da ngay fàtte ne nay bokk benn réew la la preuve man ni ñu ma daan wax ba may xale 80 cinq kuy dem dana maa ngi dem Sénégal ba tey ñu koy wax maanaam dañuy nekk ci àll bi ne maa ngi dem Sénégal li ko waral mooy kii toog. day xool dafa am pratique politicienne maanaam day xool fan la électorat bi ëppee doole mu def fa investissement prioritaire pour nit ñu di gis am réew kenn koy renu da ngay décider def dara pour que bu ëllëgee mu am jeexital ci ñëpp mais pas def nii parce que fii la poids électoral bi ëppee doole te li ma neex nii xam nga ko bu baax. ay premier ministre def nañ ko fi ay ministre def nañ ko fi président def na ko fi. tuuma rek ñu teewul nataal kenn ku ne xoolal ku bëtëm rek dana xam. ci perspective yooyu il faut que équité territoriale ñu changé ko. Mhm. am na ay jéego yu mu ci def nag. Mhm. moo ko waxut ak na fekkalee niru am na jéego yu mu ci def. Mhm. purement ci la bokk. PUDC électrification rurale ci la bokk mais am na lu ko fi jiitu woon parce que électrification rurale amoon na benn bu Abdoulaye Wade defoon. mooy ACR. Oh, am mu ngi foofu mu ngoog kon maanaam état continuité am na jéego yu mu def mais ba tey maanaam dañ koy dañ ko yàkkamte ñun citoyen bi ñu am léegi vingt et unième siècle mooy citoyen boo xam ne dafay exigeant. tey jii yow nañ la daan jaayee mbubu sax. est-ce que peuple nañ la daan ñawale est-ce que peuple bu exigeant la. ah ok ba tey ba tey. c'est-à-dire ñun ñun ñun su population yi des fois dañu yaakaar dañuy nelaw xam nga nelawal nelawal lëg la def xam nañ li bëgg de dañuy naan da ko jaralu jaragu leen jaralu leen ko pour le moment bu ñu bëggee def dox réew mi il faut ñuy ñaax ki yor réew mi ñu ne ko nangam ci baax na waaye dañuy yàkkam ci nangam. te génération yi di ñëm ñëpp gouverner dootu yombati. Hmm. mukk day sax changé xale yi day judd léegi xam ne xaw États-Unis day judd laa xam ne xaw États-Unis kii màgg mën a toj réew mi. kon jàpp nga ne kii ñëw moo yëpp jafe-jafe. moo maa la wax li mais bu ab lii nekk la war a gànnaayoo man maanaam transparence équité dialogue ba pare kaay mu wax la bi ci topp nag justice da koy teg muy kenn bi ëpp doole maanaam ku am ndey ak ku mu amul ndey ñëpp ci yem képp. ci justice lii ñeent yi bu ñu ko defee ku mu a doon boo ñëwee nga am jàmm mais ensuite doo ñëw pour am beneen mandat loolu mooy yàq réew mi. waaw d' accord léegi professeur mais yéen PRP de xanaa amagu leen benn programme pour réew mi. en ah, kay li ma lay wax nii nag lii ma lay wax xel mu rëy du du du du ay lépp du lu seen programme. ñun ñu ngi un plan stratégique kaay bi mu wax la. pour deux mille trente cinq. waaw mais programme moom dafa yomb. teg seen programme déedéet dafa tag. wax lu yomb li ma lay wax nii dara yomb ci. non non non li wax. tey par exemple tey li nga wax nii ku ko dégg dina xam ne lii xel nangu na ko waaw mais dem na la jëfe ko mooy le problème defar réew mi waxuma nag wax politique politicienne matul ñaari mandat ah bon déedéet yéene la su borom nag mooy door dogal yéene la mais da ngay jox sa bopp capacité pour def ko ñi mën dañ leen di jox ñu def ñu mënul dem toogee ne. mais yéen PRP am ngeen ci programme bu dëgër. waaw waaw man li ma lay wax dëgg baax li ma lay wax li yëpp du xel mu rëy du nangam na dañoo ñun dañoo def lël lël laa a fait un la dañoo démarré def lël def suñu plan stratégie boo xam 2035 la jëm. mais nan secteur bu ci ne ñu wax ñu ñu wax leen lii lañ ciy def lii lañ ciy def léegi mbéy bu nekk nan la ñuy changé li ma la wax sànq. ne par exemple bu ñu bëggee changer économie bu ñu bëggee yokk recette fii la ñuy xam nañu koy defee mais nan ngeen fexe ba imposer ko Sénégal yi ba xamal ko Sénégal yi ba communication bi jàll loolu nag mooy loolu nag mooy mooy jafe-jafe bi gën a rëy maanaam loo fi am ci pexe bu rëy loo fi am ci lu baax il faut nga dem waxtaanee ko ñu nangul la ko fii nag ñun maag yow ci yem dañ daan toog di gis ci plateau télé ay kàngam yor parti politique bu ñu demee toog bu élection du ñu am 0,01 pour cent xamul tax mhm. dañu leen ñun daray tubaab safuñu xamul la moo ñor. dem nañ fa nag dañ fay dem ak ñëw. daray tubaab sax xam lu ñor réew mi la juddoo fii lañ màggee. dañoo amel ak réew mi. mais est que dem ngeen au fond du pays waxtaan ak ñoom surtout. man bi man laa sama bopp. man bi ma jógee diggante euh, Koupentoum Malem Niani Malem Odar ba Nganda matagul fukki fan ak juróom déedéet yow matu ko parce que sama liggéey moo ko may li may dox ci réew mi moo ko may mais saa yu ma demee dañ ne Macky Sall def na tour du Sénégal ñaata yoon te dégguma ko. mais ñun ñun daanaka li mu def ñu ko ñu ko bëgg ñu yaakaar daanaka def ah, mais def na fi tour du Sénégal def na fi tour du Sénégal mais presque amul benn njëriñ. en ah, moo ko may PUDC moo ko may Puma. Ah, waaw kon baax mooy dëgg. waaw loolu mooy mhm. jox juste benn exemple P PUDC. PUDC li alal ji ñu yëpp dañ ko jëm jox ko ja ay jàmbur pour ñu lancer ñun marché jàmbur mooy koy exécuter mooy. Euh, euh, d'accord waaw. d'accord jërëjëf euh, professeur Ibrahima Ndiaye euh, mu nekk PRP yor lu jëm ci wàllum finance ak euh, wàllum wàllum logistique suñu dernière question mooy élection locale yi ak yéen yeewi askan wi seen liste yi nga xamante ni rejeté nañ ko fu si mel ni ville bu Pikine ak fu si mel ni Kédougou defoon ngeen recours fi nga xam ne mooy cour suprême joxuñu leen dëgg ngeen da ngeen di dem CEDEAO ban taxawaay exactement moom ngeen bëgg amee. xam xam nga lu yoon yoon dafa sew te dafa am jeexital bi yàlla rek xam tàmbali nañ def defoon nañu appel def def recours sottiwut mais démb bi ñu ko dégloo ci discours dafa woote jàmm dafa woote jàmm. mais yàgg naa woote jàmm. waaw daal non non moom da ngaa toj eh, sa noppam sàmm da xaar rek li muy dafa woote jàmm jàmm joo xam ne yow li nga fi defoon lépp safaan la. Mm-hmm. Euh, nga ñi am seen mandataire jox ko yaakaar ko te violence mënu weesu yaakaar ko jox ko seen dossier mu ne men teg ne mes ñu xëy bés ñu gis ko mu foto Macky Sall ngay woote jàmm ngay woote jàmm bu nit ñi bëggee marche nga aay leen ko ngay woote jàmm arrêté am doole loi ci réew mi la arrêté Ousmane Ngom nga ne da ngay woote jàmm def nañu recours sottiwut dañoo rejeté dañoo dañoo dàq ñu nangu ko parce que nag opposition bi elle est républicaine ñun dañoo Sénégal rek moomul moom kese kese nekkul noonu rek moom ci nu ak i liitam dafa fu mu bokk te fu mu bokk yàgg na dem jooytu di am ndam ma jox la misaal affaire dossier Khalifa Sall dossier Karim parce ñu dafa am ndam même bu nekkee réew mi mu nekkee état bi appliqué wu ko taarix dina jàpp ne amoon nañ ndam lii moo tax defuñu ko mais ñun nag dañuy ne ba foofu mu yem. ñu lu ñu fa jëlee bu ñëwee ñu ñu ñu ñu won ko askan ñu xam ne ñun suñu droit lañ nekkoon mais gàcce la cim réew ay ay ay sous préfet ki préfet yi def ay recours ci loo xam ne ni ça va de soi maanaam loo xam ne dafa yellu dafa yendu maanaam gàcce la cim réew sa opposition nga naan nga naan kii mooy bokk kii du bokk daa mel ne mbërëm làmb rek taxaw na yow yaay yow yaay wàccaacaa xool xool ñi ëpp ñi nga xam ne wóor na ñii boo demee ñoom dana tax suuf nga dem nga nga jël kenn ci sepp ci kenn ci ñoom jam ko ci ci ay fàmbam ne kaay ne ñëw ñu bëri hmm. da nga kaa gaañ te ñëwagul. d'accord euh, professeur euh, ki nga xamante ni tey moom mooy coordonnateur euh, national wala moo jiite PRP. honorable député Déthié Fall gis nañ ko si Yewwi Askan Wi est-ce que moom tey bu ñu demoon ba 2024 dafay samp ndëndëm wala dafay jéem a bokk ci coalition xeet yooyu. 2024. inshallah man ndem som sama borom ànduma ak président Déthié Fall pour ñuy woowee Sougounkouto maanaam. man xam naa ko xam naa ko xam naa lim mën xam naa lim mënee xam naa fu mu mën a jëme réew mi donc bi may ànd ak moom dama ànd ak moom pour moom mu nekk candidat kon donc jàpp nañ ñëpp jàpp ne 2024 day nekk candidat nan la ko doon ak kañ nekkoon suñu borom moo xam bañ ci yeggee. bañ ci yeggee mais PRP est que am na ay cadres yoo xamante ni tey. Euh, li daloon APR mënu ko woon a dal bu doon 2024 gañe ngeen réew mi yor réew mi jaaxle du ngeen xam fan ngeen di jëlee ay ay ay fan ngeen taxawale gouvernement. dañoo ñun dañoo créer suñu parti dawul ay bés duggulal tam bëgg moo wax rek suñ fu ñu jógee ñun dem fu ñu jógee dañoo génn fenn ànd ak i cadre dem jël président Déthié Fall def ko suñ yit ne nañ dañ doxal dañoo dem def suñu séminaire. def suñu plan stratégique bu 2035 xam nañ fenn fu ne ci réew mi la lañ fa war a def ay cadre am nañ ko mais dama lay jox benn benn benn misaal bu ndaw xam nga réew parti politique du ko yor. déedéet mënu ko gérer parti politique du gérer réew. li fi nekk ci poste loo xam ne post laa wax ak nomination kenn xamu nu mu toll mën naa la ko limal nag mais rajo lañ nekk moo tax jarul wax jarul wax. Macky Sall daa dem jëli cadre moom ci gouvernance am la mais ñun ñi ñu àndal ñi àndal. fi mu toll nii équipe bi ñu yor kese cadre kenn xamul toll d'ailleurs maa ngi ci profité di nuyuwaale Abdourahmane Sall moom moo yor moo yor tout ce qui est cadre. waaw moom dina la wax lim bi ni mu toll ak day. fu mu toll xam nga li ma bëgg wax foofu tey mooy tey par exemple tey PRP am na koo xamante ni wala juróom ñoo xam ne tey koo fi defoon ministre de l' éducation nationale wala koo fi yóbboon tey enseignement supérieur dina ko mën a gérer ci biir PRP tey am na ay économiste am na ay ay am na ay inspecteur am na ay juriste yoo xam ne boo leen defoon tey ministre de la justice mën nañu ko gérer wala. waaw waaw. kenn kenn sax doy na ma ci Abdou Aziz Mbodj doy ci ministère de la ministre la justice moom rek doy na ma ci justice ndox ma la moom am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw. d'accord jërëjëf euh, professeur maa ngi lay sant di la gërëm. maa ngi lay sant di di di di di di la jaajëfal ci ci ci invitation bi mais di di lancer benn appel juste am réew duñ ko defar ci ay wax. am réew kenn du ko defar ci fitna. am réew kenn du ko def ci diggee te doo ko def ñett yi il faut nit ñi ko bàyyi xel te politique lu baax la nit ñi ni ñu defee moo baaxul. bu ñu leen di politicien la sa des fois da ngay ragal da ngay ruus parce que politique duñ ko def pour am ci alal da ngay dem def dara mën ko am ci la yow ba pare ma noppi xajal ci nit mu dugg xajal ci sa waa kër ñu dugg xajal ci koñ ñu dugg nga doog laaj gox bi waaye yow mënoo yor sa kër da ngay gobar jaay sa kër di laaj mairie mënoo yor kër gi nga naan da ngay laaj réew mi mënoo yor sa kër gi yow yokk yokk ma bi nga nekk ci nekk chef yow yaa bëgg yaa a jiite il faut ñu xoolaat day doxale nii il faut que ñu xoolaat suñu bopp politique du lu baax la politique nabil Moustapha alayhi salaam daa daan politique kon lu baax la ñun niñ ko bëgg defee moo baaxul bu nee yow da nga bëgg politique pour tekki ci politique loo li ngay def leneen la. ci loolu ñooñu la ñuy daanalee di daal jëfal di ñaan suñu borom mu may ñu yeneen ndaje dem soob na ko. te mu mu mu gën ci ñiy déglu ak ñun ñi. jërëjëf euh, professeur euh, Ibrahima Ndiaye mu bokk ci PRP euh, yor wàllum logistique ak wàllum finance ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokki loo moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15 jotee jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm jàmm